salaamaaleykum moom si internet solution TV ñu ngi leen di bu baax a baax di am mbégte comme ni ñu koy defee à chaque fois di leen dégtal lépp loo xam ne rek moo gën a fës euh, ci wàllum euh, actualité dañ koy daal di doore ak euh, Ismaïla Madior Fall moom nag daal dinay addu lu jëm ci mbirum loi d'amnistie moom naka lam ca daal di gis rek mooy que kenn mënut a juger ki nga xam ne rek moom mooy Macky Sall ci acte yoo xam ne ba muy am rek mën naa ne moom moo nekkoon chef de l'État moom moo nekkoon le président de la république euh, fii ci euh, réewum Sénégal loolee nag kenn mënu ko ko euh, jugé waaye tamit boobule mbir itamit kenn mënu ko jël rek laale ko ci mbirum haute trahison loolu la nag la Ismaïla Madior Fall daal di xam ne dem na sax booy wax ci euh, mbirum article euh, cent de la constitution la nga xam ne rek wax na ko que ne euh, boobule mbir maanaam daal il va falloir la nga xam ne dañ koy wax ne au trahison la il va falloir rek mu nekk ay faits yoo xam ne dañ koy considérer comme au trahison ba pare teg si tamit il faut que ñu teg benn instruction boo xam ne dañuy confirmer que ne kat lii nii xew nii kat euh, haute trahison la maanaam daal jamono ji li nga xam ne xewoon na fi euh, ba muy am jamono jooju de Macky Sall moom moo nekkoon le président de la République li ni mel la ki nga xam ne moom mooy. Ismaïla Madior Fall euh, daal di xam ne teg ci yokku ci ne euh, loolu le tamit ab responsabilité collective la euh, nekkul benn dong waaye nag dafa am ay groupe de nit yoo xam ne ñoom la maanaam opposition bi ak pouvoir bi ñoom ñoo doon laale on peut dire ba li ni daal di am ndax amoon ay appel à l'insurrection yoo xam ne nemmeekoo nañ ku ay woote xeex génn leen ngeen xeex génn leen ñu daal di manifester wu loolu la nag nee na amoon na fi te lii bu amee état nag la mu mën rek mooy jël ay responsabilités am l'état li mu mën rek mooy que indi li nga xam ne moom mooy solution ngir wàcce euh, tension bi nga xam ne rek euh, amoon na fii loolu kese la nga xam ne moom mooy état daal di am ndax amaana état bu jëfewuloon comme ni mu jëfee woon euh, kon mën naa ne ñi fi nekk tey du ñu nekk au pouvoir ndax réew mi dina jaxasoo ba ay militaire jël li nga xam ne rek moom mooy pouvoir bi loolu la nag la ki nga xam ne rek moom mooy Ismaïla Madior fal daal di xamle que ne état devoir am la woon ngir mu protéger. ngir mu aar li nga xam ne moom mooy la démocratie te loolu le kese moom la daal def moo tax tey ñu daal di nekk euh, ci jàmm ak euh, salaam ba tax na euh, Mansour Faye moom itamit daal dinay bind ci page Facebook am di critiquer bu baax a baax régime régime bi nga xam ne moom moo fi nekk ndax moom Mansour Faye li jëm ci mbirum élection législative yi nga xam ne ndiki 17 novembre 2024 ma ngay avertir nag Sénégalais yi ndax jamono ji gis na ne que ne bu ñu sàgganul tuuti réew mi dina dugg ci li nga xam moom mooy ab euh, guuta nax yorin bu bon bi nga xam ne euh, ñi fi nekk ñu ngi ko yore waaye nag euh, manque de sérieux bi nga xam ne nemmeeku nañ ko te loolu lem ngi dooree ca kaw li nga xam moom mooy état bi loolu la nag la daal di xamle ma ngay alerté waat bu baax a baax danger bi nga xam ne moom moo bëgg a jëm fii nga xam ne moom mooy réewum Sénégal ndax situation bu métti jamono ji la ñuy daal di nekk ndax ñi nga xam ñoom ñoo ko yor mënuñoo gérer bu baax a baax li nga xam ne rek. moom mooy ab euh, réew ndax ni nga xam ne euh, noonu la ñuy defee te tamit dañoo am benn chef de l'état boo xam ne dafa démissionné euh, ci responsabilité am démissionné ci mission yi nga xam ne dañ ko ko dénk te muy maanaam daal jamono ji role bi nga xam ne président moom la waroon a joué malheureusement joué côté dañoo am benn président boo xam ne wër dëkk yi rek la fi daal di nekki loolu la nag Mansour Faye moom moo ko dal di xam que ne jamono ji attente yi nga xam ne xaar bi nga xam ne askanu Sénégal mi ngi koy xaar régime bi mën naa ne loolu li ñi fi nekk mënuñ ci dara ndax amuñu boobi les compétence amuñu li nga xam ne rek moom mooy boobi les capacité te boo xoolee euh, maanaam daal seen comportement ak na nga xam ne noonu le président di doxalee ak ki xam ne moom mooy sax le premier ministre autant pour moi ni nga xam ne noonu le premier ministre doxalee rek da ngay xam ne que ni kat ñi mënuñu dañoo daal di euh, tëli loolu la nag la ki nga xam ne rek moom mooy euh, Mansour fay daal di yëkkati teg teg ko ci régime ñi nga xam ne rek ñoom ñoo fi daal di nekk keneen ki nga xam yëkkati na ay kàddu daal di dal kaw ki nga xam mooy Ousmane Sonko muy euh, Amadou euh, Ba euh, moom mi nga xam ne jamono ji niki dem foofu la ca Nioro du Rip la daal di demoon waaye nag ñu gis ne ab mbooloo moom moo ko daal di topp moom moo tëdd li si coalition jàmm sa njariñ bile waaye nag manqué wul boobu occasion ndax daal dinay daal ci kaw ki nga xam ne rek moom mooy Ousmane Sonko ndax moom Amadou Ba nee na kat Ousmane sunk mi nga xam ne jamono ci moo nekk euh, premier ministre waaye nag gis nañ ne moom daal opposant lay doon ba faw du mës a euh, soppeeku euh, ndax gis nañ ne te tamit loolu la xam maanaam daal opposé la xam moo tax bu nekkee sax pouvoir da ngay gis que ne kat euh, dafay opposé wu te loolu li euh, na mu ngi ñaan askan wi rek ñu daal di koy may loolu léegi delloowaat ko euh, ci li nga xam ne rek moom mooy ci opposition bi te loolu le faw mu am nag wala pour mu am il va falloir askan wi nee na a jox leen li nga xam mooy majorité à l' assemblée nationale ndax Ousmane Sonko opposé wu la xam te moom lay def ba faw buñ fa jugee dañuy dem ci mbirum Ahmed Ndoye ndax am na leen loo xam tey lañ ko war a lañ ko waroon a jugé moom Ameth Ndoye mili waaye nag dafa am lenn loo xam ne am na ci euh, mbir mili ndax ki nga xam ne rek moom mooy Asow euh, agent bi nga xam ne jamono ji dañ koo daal di euh, teg loxo moom nag daal nay révélé boobile attestation fan la jógee ndax nee na kat moom moo ko daal di jox kenn ci xaritu Ameth Ndoye yi bien vrai que ne révélé wuñu turam waaye nag dem nañ foofu la ci Rufisque gisuñu ko jamono ji nag mën naa dafa daw euh, làqatu ji waaye nag suñu force de défense yi ña ngi koy wër euh, jamono ji pour euh, gis ko ndax attestation moom moo ko daal di remplir jox ko ki nga xam ne rek moom mooy Ameth Ndoye maanaam daal jamono ji moom dafay gën a enfoncé ki nga xam ne rek moom mooy xaritam di Ameth jamono ji nag ndiki tey lañ ko waroon a jugé waaye nag ay avoca am ñoo daal di sàkku rek ngir ñu daal di renvoyé mbir mi leen ndax nee nañ kat moom Ameth Ndoye ginnaaw bañ ko defee garde à vue gendarme lañ ko koo daal di eh, déglu te pourtant amul ñi nga xam ne ñooy avocat eh, teewuñu ci côté am léegi nag loolu sax moom moo waral maître Amadou Sall dal di xam ne que ni procédure bi eh, baaxul nañ jaarale mbir mi baaxul benn yoon léegi nag nañ leen may temps fii ak le 7 fii ak le 7 nag le juge bi daal di xamle que ne le 7 novembre la ñu war a délibéré boobu lii mbir moom Ameth nag lañ koy toppee rek mooy défaut de permis de conduire ak blessure involontaire ak faux usage de faux. lii ni mel mu nekk ñetti accusation yoo xam ne euh, jamono ji moom lañ koy toppee xaritam bi nag ñu ngi koy euh, wër nax euh, suñu force de défense et de sécurité ña ngay def lépp lu ñu mën rek ngir teg loxo kooku leen ndax jàpp nañ ne mbir mi tamit dara la ci fii la ñuy daal di wàccee suñu ay kàddu di leen jaajëfal bu baax a baax di leen joxaat di daje niki ci kanam tuuti ak yenn xibaar waaye naka bu leen fàtte à chaque fois rek di abonné ngir ngeen mën am information yu waxtaleex